wasalaatu wasalaamu ala sayidil awalina wal axirin sayidina muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa man wala dinaaw sant yàlla ak julli ci yonent bi sallallahu wa sallam ñi ngi nuyu bokk julli ñëpp fu ñu mën a nekk ci àdduna bi rawatina waa Sénégal rawatina Medina Baye waaye xaasatan Cheikh Mouhamadou Mahi Cissé radiyallahu anhu nga xam na tey ñu ngi ci dëngëreem di def loo xam ne amalul ko bis amulul ko waxtu amalul ko jamono bis bu mel nii daf cee gën fës ñu nekk ci bis yu tedd bis yu màgg ci weeru màgg di weeru tabaski julli ñëpp di ko séentu di ko feetal di def loo xam ne yàlla moo leen ko digal moo leen ko sant ñu di ko wéel waaye nag moom mu di ki def taxawaay bu am solo di dimbale jaamu yàlla yi guddi ak bëccëg zahiran wa baatinan di ko def te yàlla tax rek moom Cheikh Mahi ku xam rek da nga xam ne ittee jamu yàlla rek moo ko ñor ittee jullit ñi rek moo ko ñor bëggul ñu xiif bëggul ñu mer ñu mar ku feebar dana taxaw dimbale ba nga faju ku xiif dana ba nga lekk ku rafle sax mu dimbale ba nga sol koo xam ne li muy def te yàlla tax bëri na tey ñu ci liste bi Cheikh Mahi jox na leen xar ñim xamul ñoo ëpp ñim tam kon loolu li muy teg rek mooy dafay def te yàlla tax mu yàlla ji rek moo tax muy def mu koy def nag ci xol bu feex ak yéene bu am solo boo xam ne da koy def rek ngir yàlla jaamu yàlla yi képp ku ko gis rek Cheikh Mamadou Mahi dana fayal sa soxla dem na sax ba dañuy jàngal ñun sax ni ñuy waxee ak nit ñi ñu ñëwee wax ko soxla dana la dalal dalal saxal xel bu weeru tabaski teroo rek ñu bëri ñu ñëw di ko wax ay xar waaye dama lay wax li lay wax rek mooy ak buñ fi si fi àggee incha allah ci ay fan nga ñëw boo ñu dam la waxoon mu def ko dimbale la te yàlla tax ba tax na bisu tey bi ñu ngi taxaw tey ci déngireem ci école am boo xam ne moom moo ko taxawal muy muy markazu ak fitiyaan ci alalam muy loo xam ne daf ko tabax dërëmu doomu aadama bu mooyee ay taalibeem ak ay soppeem kenn fekk siw ko mu taxawal ko di doomi doomi julli di fi jàngee ñun xam ak ñun xamul ay nationalité yu bëri ñu béy ko Burkina ñu béy ko Guinée dégg nga Nigéria ba Amérique ñu ngi ci école bi tey di fi jàngee ubbi na fi daara internat boo xam ne ci at genn wala tey ci seen njàng ak diir bi ñu fi defagum loolu résultat boo xam ne Cheikh Mamadou Mahi moom moo ñu moo ñu may loolu itteem lépp mu ngi ci biir tey nag ñi ngi ñëw di séddale ay xar ci lim goo xam ne toll na ci trois cent soixante-deux quatre cent cent quatre cent soixante-deux xar yoo xam ne ñu ngi koy séddale tey di ko jox jaamu yàlla yi comme ma ko waxee rek ci njëlbeen mu di ci roy ay maamam ci roy baayam ci roy ay magam lépp rek pour dimbale jaamu yàlla yi ba seen soxla yëpp faju loolu rek mooy itteem ñu ngi koy ñaanal yàlla Cheikh Mamadou Mahi yan na yàlla guddal fanam yan na yàlla may ko wér yan na yàlla yokk wërsëgamam yan na yàlla yokk xam-xamam yokk maqaamam yokk barke yokk wërsëg yokk man-man waaye di ñaanal ñi nga xam ne dugal nañ seen loxo taalibi yëpp Cheikh Mamadou Mahi gërëm na gis nañ seen itte gis nañ seen taxawaay ñi nekk biir réew mi ak ñi nekk bitim réew kenn ku nekk rek bi nga yéegee ne Cheikh Mouhamadou Mahi mu ngi def lu mel nii doo xaar sax mu ne la defal nangam yow yaay def sa ci sa yéene ñëw bokk ci xam ne yaa ngi liggéeyal yàlla xam ne yaa ngi liggéeyal sa sëriñ yaa ngi koy xidma ci koo xam ne lépp loo ko jox rek jàppal ne moom def na dool na ci lu ko man ñun xam nañ ci def kooku nag jar naa dimbalante dimbali antal ak moom jar naa liggéeyal ku jar a xam na di ñaan yàlla rek ñu ci def seen alal ak ñi nga xam ne sax defuñ ci seen alal dañ cee ñàkk comme ni ko sëriñ bi waxee ñooñu it yal na yàlla fay leen waaye di gërëm it Cheikh Ibrahim Cissé mu taawam di doomam bu dégg bëccëg nelawul yendalu mu ngi ci liggéey bi di ko di ci taxawu di ànd ak ñun di ñu nekk ci gannaawam muy defee liggéey bi ni ko sëriñ bi bëggee wala sax nu ko raw mm-hmm. moom ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaana yàlla yàlla guddal fanam te may ko wér yokk xam-xamam yokk barke bi yokk wërsëg bi yokk man-man bi di ko ñaanal ba lii nga xam ne sëriñ bi mu ngi koy def ëllëg moom it mu mën koo taxawee di def sax loo xam ne sëriñ bi sax defu ko loolu man na yàlla mën na ko yal na yàlla def ko di ñaanal taalibe yëpp nag ñëpp ñëw nañ dugal ci seen loxo ak seen ñaq ak góorgóorlu si ba lépp yéwén ñi nga xam ne dañ ngeen di bind ci liste bi ñëpp ñëw nañ jël si nañ jox nañ leen alhamdulilah ñëpp kontaan nañ euh, coow amut wax amut dañ ko def rek comme ni ko sëriñ bi bëggee loolu nag yaram la ni ndimbalam la ay ñaanam la du suñ góorgóorlu du suñ kàttan du suñ man-man ñaanu Cheikh Mahi rek la am na ñoo xam ne ñëw nañ foogoon nañ sax liñ joxe tey ci ngoon duñ ko mën a joxe daa 17h30 lañ commencé yàlla dimbale nañu genn wax la xar yëpp dem na te ñiñ bind ci liste bi rek ñoo ko jël incha allah yaakaar nañ ne balaa ñuy tëdd lépp ci xar yi dana dem bu subaa incha allah ñu mottali incha allah asalaamaaleykum